ziar leen bu baax nag macha allah ànd ak yéen ci programme spécial bi nga xam ni seen télévision la 2STV xam ngeen ko rek saa su ne mu ngi seet lan mooy bëgg-bëggu nit ñi bu ñu gisee ni njariñu réew mi ak njariñu diine jaa gisee rek ñu ànd ceeg ñoom macha allah ci noonu xam ngeen ni seen tafsir bi miinoon ngeen ko ci lu dul koor at mi yépp day day ànd ak yéen doon def 6 heures ba 7 bu koor gi jotee nag télévision bi yokk liggéey boobu. jëlee ko 6 heures indi ko 14 heures 14 heure 15 heures mooy seen heure bi ngeen tàmm di ko seetaan tafsir ngeen baal ñu nag ñetti fan yii rek semaine bii nii xam ngeen nii euh, lu def waxu te lu ay di jàmbat fi ne moom xel yëpp bu koor gi tollee fii rek xel yëpp dem ci grand prix bu ko Sénico ko ngeen xam ni moo bu musul a deñ di ànd ak yéen. ci seen émission bii di tafsirul quran saa su ne mu ngi koy sponsorisé di ànd ak yéen moo macha allah agence de voyage at tanim ni ñu daan ànd ak yéen rek la ñu àndaat ak yéen ñu nuyu leen ziar leen ñoomit bu baax a baax a baax baax kon c'est di ko seen concours bii nga xamante ni ren dafa gën a yaatu il faut que ñu comprendre ni dafa am concours national ak concours international ren noonu la tëddee final bi mu ngi doon le 17 incha allahu ca grand théâtre comme ni ngeen ko miine saa sune ne rek noonu dong lay ame waaye bis bu jot 11h ñu ànd ak yéen ci direct seen télévision la 2STV ak lay partenaires yi nga xamante ni ànd nañ ceeg ñoom ngeen gis lan ñu leen koy tegal en direct li xale yi di def allahu akbar wallahi mbokk yi maa ngi leen di wax ni ku stressé wu rek dawul foofu gaaw boo demee sa stress de daba li gën a gaaw a dindi stress fii mu toll ci réew mi booy 11h fekk la institut islamique ba xale yi taxaw membre jury bi macha allah bu nee docteur Bousso rek ak équipe bi mu àndal nga xam ni boo leen xoolee xam ni ñu sérieux lañu waaw ñu sérieux liggéey bu sévère la ñuy def mais teg ko ci yoon boo fa toogee xale yi di la wéttale ci alquran da ngay xam ni ndekete wallaay li may wax rek réew mi li fi bon bariwu fi de c'est que ñi koy def dañoo yor seenu làmmiñ rek ba nit ñi defee ni lépp a bon réew mi ndekete lépp a yàlla xam na loolu xale yu ndaw xale yi douze ans xale quatorze ans quinze ans di mokkal alquran mokkalin woo xamante ni da nga yéemu nag da nga yéemu wax dëgg yàlla man de falaa jógee rek ñëw ànd ak yéen di ànd def ci ñu leen di tegal tax tafsir bi kon lu ngeen tey déggee mooy ah man ba ma fay jógee lu ma de dafa fekk ni rek lu devoir m'attendait man moo na bañ a ñëw ah waaye am na solo de mbokk yi kon nañ ci bàyyi xel le onze démb la door noonu lay nekkee ba le seize muy concours nationale bi mooy doon onze douze treize quatorze bu ñu demee nag quinze seize ñu jox ko internationale bi bu ñu demee nag ba ca euh, dimanche ba si la ñuy def cérémonie boobu nga xamante ni si la ñuy wax kan moo gagné concours international bi kan moo gagné national bi ak teraange yi ñu cay defal xale bi yal na yàlla fayal ñu waa Sénégal Hadj Abdallah ñu ngi lay sant te di la gërëm ci turu waa daara yëpp waaye ci turu képp ku dëkk ci réew mi te bëgg lu baax mu ngi lay ñaanal yal yàlla defal la jàmm defal la tawfiq yàlla yàlla sàmm leen aar leen équipe baa nga fa liggéey baa nga fa yaatu lool yàlla yàlla mottali ko moo tax rek. ñetti fan yii muy tafsir bi am tey ak bi am suba ak bi am ginnaaw suba xëy na mu am tuuti perturbation ci heure bi loolu nag nangu nañ ko ak xol bu sedd guy waaye bu ñu demee nag ba altine lépp dégguwaat ci yoon loolu it moo waral émission yi ngeen doon gis ku mel ni imaam daam macha allahu ak euh, yeneen émission yu doon am am tuuti perturbation rek mais di lépp dina teguwaat ci yoon comme niñ ko bëggee woon kon yàlla yàlla fayal ñu wasidiko yàlla yàlla fayal ñu képp ku bëgg alquran sëñ daara yi ci biir réew mi fu ngeen mën ne seen liggéey rafet na gàcce ngalaama yàlla yàlla fayal ñu leen mbokk jullit yi ci noonu rek dañuy jógee ci alquran rek dal siwaat ci alquran ji alquran jee dañ ko doon jàng ñu koy dégg alquran ji ñu koy jéem a leeral kéem te lay kàttan daba ren ñu ngi jël suratul maida al maida mooy la table ñu jël ko nag ci koor gi tombeeg jamono yi ñu koy jëlee soo demee ca Makka yaa ngi fay gis ak dëkk yu baree bari ci monde islamique yaa ngi fay gis lu ñuy wax maidatur rahman maidatur rahman mooy taabulu borom bi taabulu teraanga ji nga xamante ni borom bi moo ñu ko fa yéenee tegal maanaam jaarale ko ci ay nit ñu baax soo demee fii mu toll Makka wala nga dem ci golf bi fu bari demal sax Europe demal France demal Belgique demal Espagne demal demal kon de loolu war nañ caa dégg ni ñu nit war nañ ko indi bu baax gën ko yaatal mooy da ngay rek nit koo xam ni da koy def li wajhillah innama nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukuran lal ay ay mbalaan yu yaatoo yaatu lal fu yaatu tudde ko taabulu borom bi di defal nit ñi teraanga ñun de ñu ngi koy def suñu réew waaye nañ ko gën a sellal rek ci def bi nañ ko gën a sellal buñ ci ut koomu àdduna buñ ci ut dara nañ ci ut yàlla rek yàlla rek jullit bu woor ba dog jot nga koy dogal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee di nga am yool bu toll ni bi mu am te du wàññi yow ci sa yool dara yool bu toll ni moom bi mu am te du wàññi ci sa yool ci yoolu aji woor bi dara moom la mu am dina ko am yow mi nga xam ne yaa ko dogaloon nga am lu ni toll kon solo la dañ koy dundal mbokk yi bu ñu xeeb bu ñu xeeb ñu xeeb ñu ñëpp nañ ci bàyyi xel bu baax daba dëkk nga ak sa benn dëkkandoo boo xam ni xam nga di kat am na jafe-jafe xëy na ci dogu bi waaye yow daba leer na leen ni koor gi ba koor gi jeex bis bu jot mën nga ko assuré ñaari miisu mburu wala ñetti miisu mburu waa këram di ko dogoo wallaay boo ko defee yàkki indi milliard def ko ci mbir mi yéen yàlla xam na ni ci sa doole nga defe bul ko xeeb bul xeeb jënd kat benn saakub ceeb. bu vingt kilo bu vingt cinq kilo wala bu cinquante kilo bu mën a doon gis ni kii kat yitte woon na ko lool ci koor gi nga defal ko ko loolu yàlla dala ciy fay yooyu yëpp day dugg ci maidatu rahman tombeek nag koor gi mbarak ñu war a door suratul maida muy saaru taabal ci taabal jaa ngoog nag taabal jii nag geneen taabalu taabal taabalu borom bi la nag bi moom taabalu borom bi lan leen di tegal rek bokk yi ngeen xool taabalu borom bi ni mu riche maidatu rahman tombeeg suratul maida moom lañuy doore ci kooru ren gi bokki jullit yi waaw bokki jullit yi saar bi de buñ doon wax ay aayam day toll ci téeméeri aaya ak ñaar fukki aaya muy cent vingt verset saar bi di suratul maida mbokk yi mu ngi wàcc Madina ba mu des al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan loolu mu ngi wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ca arafa ba mu wàccee ca jabalul rahma si la aaya bi wàcc allahu akbar ca xajjatul widaa aj googu nga xam ne benn yoon la ko def moom la ñu tàggoo def fa xutbatul widaa xutba boobu nga xamante ni moom la ñu tàggoo moom sallallahu alayhi wa sallam naan ayuha nnaas ismaau fa inni laa adri laalli laa alqaakum baada aami hada fi shahri hada wa fi baladi hada déglu leen ma yéen gay yi ndax wóoru ma ndax déwén dinaa mën a dajawaat ak yéen ci place bi di wax wax jii ñuy waxaat dina mën a am wóoruma est-ce que dina mën a am wóoruma loolu la borom bi subhanahu wa loolu la yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon keroog nag la ko yàlla wàcceel aaya bii kon aaya bii day benn la ci aaya yi nekk ci suuratul maida waaye wàccewul madina waaye bu nga wàcce Makka bisu arafa xajjatul widaa yonent bi jàng ko ndeysaan waaw ba mu defee xutbaam moom ba pare waaw yonent bi lii wàcc bi mu wàccee keroog nee na leen yaa ayyuhan naas yéen nit ñi yëg leen ni suratul maida bokk na ci saar yi mujj wàcc ci alquran waaye daganal leen lépp lu mu daganal te araamal lépp lu mu araamal loolu nag laaj na point d'interrogation sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen daganal lépp lu saar bi daganal lu mu araamal ngeen araamal ko boo déggee loolu danga naan lu tax yonent bi alayhi salatu wasalaam jël spécifié rek saar bii di suuratul maida ni lépp lu mu dagganal na ngeen ko dagganal lu mu araamal na ngeen ko araamal mel ni kon yeneen saar yi ñoom li ñu dagganal ak li ñu araamal waruñu koo daganal araamal ko loolu nga ciy dégg dab muy une question boo xam ni ah laaj na rek reflexion bu baax a baax a baax a baax ndax amul benn saar boo xam ne ci alquran am na lu muy daganal am lu muy araamal lu dul dañ koo war a topp mais lu tax yonent bi jël saar bii rek gën cee leeral lool mooy dafa bëgg nit ñi gën a bàyyi bàyyi nit ñi bàyyi xel bu baax suuratul maa'ida waaw mooy saar bu am solo boo xamante ni li muy indi ci ay atte bari na lool waxin bii nag da nga koy déggee yàlla da ngay dégg mu ne inna iddata shuhuri inda allah isna achara shahran fi kitabillah yowma xalaqa xalaqa alsamawati wal ard minha arbaatun xurum dalika diinu alqayim fala tazlimu fihinna anfusakum mbokk yi mooy lan yàlla nee na weer yi fukki weer ak ñaar la mais am na ci ñeenti weer yoo xamante ni yu ormal la ñu koy wax korite diggi tabaski ak rajabul fard shawal zul qaada zul xijja ak rajabul fard su ma ko doon wax ci wolof dama naan tabaski dama naan la kori muy bu ñu wooree ba mu jeex ni la diggi tabaski ni la tabaski ni la ndeyu koor loolu lañ koy waxi ci wolof dàbb mu ne ñeenti weer yooyu yàlla ormal la ah nañ ko bàyyi xel bu ci kenn tooñ nga ni est-ce que da nga ciy dégg ni kon bu weesoo ñeenti weer yi nit war naa tooñ déedéet <laughs> taxul nga tooñ di mais daf la koy dëgërale noonu rek pour nga moytu tooñ bu baax rawatina nag ci weer yii mu la tuddal at mi yëpp la too tooñ araam waaye nag ñeenti weer yi dala ko gën a dëgëral ndax dañ daan def trêve même ñi daan xeex sax dañuy def cessez le def trêve mooy nañu arrêté bu kenn xeexati ci weer yi ci araab yi même lu jiitu lislaam weer yu araam la woon ci ñoom ñu xeex ci muy ñeenti weer yi ma la limal ñett yi nag ñoo taqaloo muy kori diggi tabaski rajab nag moo nekk fële kon moom danga nga naan rajab mooy bu ba mu jàllee c'est la chaabaan jàll chaabaan jàll ramadan jàll muy soog a ñëw nag ci shawal li muy ni nag ci ay atte moom saar bi ëpp na fukki atte ak juróom-ñett wala nga ni fukki atte ak juróom-ñett dix-huit atte yoo xamante ni indi na ko te doo ko gis ci beneen saare alquran bu dajalee loolu lu baree noonu ci ay atte di la ko indi baxa wii wax na ko ni yàlla wàcce na saar bii wàcce na ci saar bii dix-huit atte yoo xamante ni yu ñuy war a jëfandikool te wàccul ci beneen saar boo demee ci xurrimat ba danga ko fay gis nem la koy limale almayta wa dam loolu dina ko limal ba yegg ci wal munxaniqa wal mawquuda wal mutaraddiya wal natiixa wa maa kala saba illa ma zakaytum wa ma zubixa ala nusbi an tastaqsimu bil azlam waaw di dem du ko bàyyi ba wama alimtum min aljawaarixi mukallibina wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wal muxsanaatu it bu ko fàtte min alladina utul kitaab yooyu yëpp la ciy dig am na it ci atte yi wa ida qumtum ila lsalaati wa saariqu wa saariqatu fala ne wala taqtulu sayda wa antum xurumun maa jaala allahu min bahiratin wala saaibatin wala wasilatin wala xaamin yooyu yépp da ciy ndikk mbokk yi atte yu baree baree bari dikk na ci saar bi di suratul maida buñ koy door yàlla daf ko door rek nii yaa ayuha alladina amanu ay yéen gaa ñi gëm yàlla yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñii nga xam ni yéen a ni gëm ngeen yàlla yàlla ni aw foo wax koo de bu dee da ngeen wax ni gëm ngeen te muy dëgg matal leen kóllëre yi <laughs> dab kóllëre dañ koy sàmm kóllëre dañ koy matal dañ koy matal waaw euh, suñu digganteeg suñu boroom am na yu dox suñu digganteek moom yu mu ñu waxoon bu ngeen demee ndax di ngeen jaamu waaw dinañ jaamu dinañ def lii dinañ def lii yooyu yépp dees koy matal julli bu jotee sa xel na dem ci kóllëre gi nga amoon ak sa boroom nga julli ci koor bu jotee sa xel na dem sa kóllëre gi nga amoon ak sa boroom nga woor natt azaka bu jotee génne azaka bu jotee sa xel na dem ci kóllëre gi nga génne azaka dem màkk su jotee nga mën ko sa xel na dem ci kóllëre gi nga génn euh, nga nga dem màkk saraxe di def lu baax di bàyyi lu bon loolu nañuy matale kóllëre mooy mu nii nag dafa jar a bàyyi xel de loolu nag lu dox suñu diggante ak suñu boroom la ci yi dagan ak yi araam mu nañ waaw nee na nag nañ ci góor góorlu lu ñu man waaw ba bañ di fecc kóllëre mag ñi sar musuñu ko nangu mag ñi dañu mas a fonk kóllëre kóllëre googu ni nga koy fonkee ba ciy diggante it na ko ci fonk bis bi nga toogee di ñaan soxna gis doomu jàmbur bëgg ko waaw di yaru yarulu di kondom kondom yi di sedd seddlu di sérieux sérieux ba ñu may la doomu jàmbur ci ay kàddu yu leer moo tax Omar Seydina Omar daan ko axastumuhunna bi amaanatillah wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah ci ka ci ci kóolu borom bi suñu diggante la suñu borom la ñu doxalee ci sëy bi moo tax nga dégg ci xutba bi ñu ñu lan la wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arham inna allaha kaana alaykum raqiba waaw kon kóllëre gu foor la waaw ndaw si dagan la ci kàddu yàlla gu ndaw goo xamante ni mooy ndan naan ñeent ak terence la waa ji joxe mu dagan ko soo ko joxewul woon ba dagana lu ñu seen diggante soo doon may ndaw si milliard par jour boo fay dugg da ngay làqatu boo fa boo dëngee ba fanaan faat boo génnee ca paranteer ba ngay tëb xanaa daw parce que doon nangoo feeñ <laughs> doon nangoo feeñ nit joxe ñeent ak trente xëy na sax la mu joxe yëpp matul trente mill ñu ni ko kii daggan na la guddi jot bàyyi ndaw sa nekk ca seen kër séyiwul papa yi ndaw si ne fi yaayu ndaw si ne fi waa ji di dugg ak ndaw si ci néeg bi ni keraj bunt te kenn du wax dara kóllëre googoo tax di ñu xëy bis rek ndaw si ëmb ñëpp kontaan ci nag di ko ñaanal sedd xoolal nag ki nga xamante ni mayewuñ ko mu jékki-jékki ëmb nan lay mel kon kóllëre gu rëy lan la maye soxna si aw fu bi loo xóodi sàmm bu baax a baax a baax kóllëre googu ko sàmm bu baax am nga soxla fekk dabba toog nga ñëw diis ko sa soxla ah dabba man de situation daf maa dab ma bëggoon rek boo ma tane rek ci benn vingt mille ma décanté rek ba fan yii rek su situation yi changé rek euh, ma jox la ko ah ni la lii de utuma ci benn sedd lu dul sama diggante man yow ak sa borom bismillah kóllëreen gii nag sama diggante la ak yow ak suñu boroom ba àdduna di tukki nit du dégg mukk ma di Abdoulaye Gueye maa ko lebal keroog vingt trente mille doo ko mës a dégg ci àdduna nit ni man maa ni maa la yoreel yaa maa la maa la lebal li waaye maa ngi lay ñaan rikkaay bu ñu kenn dégg bu waxtu fay jotee nii nga ko ci wéri na ko def aw fuu bi loo xoodi waay kon matalal kóllëre googu matalal kóllëre gi waaye da nga gis lebkat yoo xamante ni trian la ñu trian yu ngand da bu koy àndal nii ci mbedd mu jékki-jékki ngeen waaye saa xaar waay ma jàdd fii dafa yore bor ca kanam te yaa na fa benn nit xam ne waa jaa ngi koy xaar ci kanam daal xot dañ jàdd day xol ñi dañu bari wax quoi ngay jàdd ñu lay nuyu kenn nuyuwu ko xam na ni ki koy xaar a ngi koy xaar foofu matalal kóllëre nga fay baay bu baax ma yàlla na ko yàlla xare àjjana alaaji Mor Mbay kër gu mënoon a wax googu waxam bindam yu am solo yooyu daan na wax naan sàcc bu dee juróom-ñeent ka fukkeel mooy kay leb te fas wu la fay dina sàcc bu dee juróom-ñeent ka fukkeel mooy kay leb te fas yéene wala fay kon kóllëre la waaye yow bu la fayee ba pare na fa yem nag waaye fay la te waxoon nga ko ni ko kenn du ko mës a dégg bis mu dem ba jekk ba soxlaatu laa leb romb la yor otoom yori teranga mo bu yow xanaa tey la mën a fuuy man fii bë kii yàgg naa dart dart sama kër gi ma koy lebal ay vingt mille ak trente mille de aw foo bi loo xoo di sàmmal sa kàddu sàmmal sa kàddu ndaw si yow it dal laa mayee ci farata ak sunna nga war a sëy séyin ba gën a rafet am lu war sa digganteek sa jëkkër ci dégg ndigal topp lii topp laa loolu lépp ñu wax la ko ba mu leer sa bopp ba ñu lay waajal di la teg di la teg ci diggu ëtt bi di la war waral pour nga war a dem sëy wax nan la boo demee na nga comporté woo nii na nga comporté woo nga dem di def lu la neex ci kër ga aw foo bi la yàlla nee na matal leen kóllëre gi yàlla da ci da ci insisté lool waaw waaw waaw waaw lépp loo waat na nga ko respecté sëy nañ ko fonk bul fecci kóllëre koo seqal jënd ak jaay na nga ko da nga ci def lay jët lay dëgg matalal kóllëre bul ca wor nit ki di jënd or nga jaay nga nga nga indil ko loo xam ni pakotil jox ko ko mu yóbbu yaakaar ni xelam nii kat gor la waxal jox nga ko la dagan la baax fekk ni yow la gën a bon nga ko jox ko mataloo ko la rek kon nag da ca jara bàyyi xel contrat yet nañ koy respecté aw foo bi la xóot yi contrat moo la lié lié ak ki ngay liggéeyal kon côté bu ci nekk nañu na respecté contrat boobu bu baax a baax a baax man kat dama laa jël bi ma la jël jox naa la kayit guy wane ni jël nañ la moo xam contrat à durée indéterminée nga am wala contrat à durée déterminée al al muhim bu mu ci mën a doon wan naa lalu leer a leer a leer ngay gis mu ngi nii heure bii laa bëgg ngay xëy heure bii laa bëgg ngay wàcc bu weer deewee lii mooy salaire bi ma wax ak yow fa fasuma yéene romb le premier wala le cinq wala le dix almuhim la ngeen juboo ndax yonent bi nee na almuslimuna ala shurutihim gis nga bu xasee ba leer kenn ku ne defal li la war aw fu bi la uqudi yow liggéeykat bi del ñëw ci heure yow mi koy liggéeyloo bu fayam jotee jox ko waaye mu lay liggéeyal ba pare te bu fayam jotee nga ko seekaak di dugg fii ak di lijjanteeg di tappale yooyu baaxul fay ko xaalisam fay ko xaalisam waaye moom it bu mu bu mu yittewoo di jël loo xamante ni daganul waxoon naa leen ko fi nettali leen ko ci mbokk ma waxoon na ko ni égyptien ba waxoon na ko ni dama nii moom bi mu duggee Sénégal dafa seetaat di seet ni sénégalais moom xamul xadis bu ñu mokkalul waaye mokkal na mokkal na xadis bi yonent bi naan euh, joxal liggéeykat bi ak xam balaa ñaqam a fer dàbb lool la yonent bi wax ci lay liggéeyal jox ko ak xam balaa ñaqam a fer mun waaye moom dafa gis ne sénégalais yi dañoo desee dégg xadis bi parce que balaa ñaq ma fer la wax kon moom mi ñu jox àq dafa war a liggéey ba ñaq dafa liggéey ba ñaq ah, ñaq nag mën na doon ñaq muy feeñ fii mën na doon ñaq ci sam xel ndax waa ji toog ci buroom di liggéey te liggéey bu bari moo koy def travail intellectuel la bureau am climatisation bu sedd guy mu ne ci machine yi daanaka siggiwul kooku mën naa bañ a ñaq de waaye xel mi dina ñaq de xel mi day ñaq moo tax tubaab fayul doole xel lay fay dàbb tubaab fayul doole xel lay fay gis waa joo xam ne moom day toog di signé rek wàcc takk karawaatam ak costume ñu la moom de chaque mois mën naa am deux millions deux millions cinq cent cinq millions ça dépend ça dépend gis nit koo xamante ni mu nga yenu di teg di dóor di daaj bu bëgg dee ñu ni ko yow de mënoo mënoo weesu cent cinquante deux cent déedéet kon xel ma la fay waaye fay ñu doole ja waaye mbokk yi li am solo mooy daal aw foo bi la waxoo di nañu matal kóllëre kóllëre yi mu ni uhilla lakum bahimatul anaam nee na daganal nañ ci yéen bàyyi may juru kër gi bàyyi ma ngay dégg ñu bàyyi ma ngay dégg ci xar bëy nag gilleem yooyu yëpp ak jur yëpp yooyu ay bëyi ma bàyyi ma la mais nag bii dafa gën a leeral bahimatul anaam juru kër gi nee na na dagan na nga lekk xar dagan na nga lekk bëy dagan na nga am ko ci nag bi dagan na nga am ko ci gilleem gi ak yeneen ginaar yi waaw waaw yooyu yëpp da ciy bokk lëg yi yeneen ak yeneen yooyu yépp dagan na illaa ma yutla mu def naa bu rëy moo am solo mu lu dul yii nga xamante ni nag setteel na leen ko sette mooy génn nañ ko doon na ay exception waaw ah, am na yoo xamante ni dina ci dikk nag ci biir saar bi wax la yan mooy exception yi nga xamante ni daal jar na nga bàyyi ci xel bu baax a baax baax baax waaye nag mun la na nga xam ne daal moom daganal nañu yii bu lay wax yépp daganal na leen dagal bu wér bu am solo bu jar a bàyyi xel nga jëfandikoo ko lu dul nag yi nga xamante ni moom tuddees na ko jàngalu nañ leen ko wax na leen ko mu leer am na yoo xam ne dina ñëw mooy bu ñëwee ci xurrimat aleykum ja yooyu yépp dina la ci wax yan mooy yi nga xamante ni moom kenn waru koo kenn waru ko boole ci alquran tuddal na la ko mu leer bu demee ci xorrimat aleykumul mayta dinañ ci yegg moo tax mënuma ci ñëw léegi ni dina la wax yooyu yëpp ah mu ni waaw kon yi ba dagat moom dagat na mu ne ah xeyru muhalli sayd wa antum xurumun am na yoo xam ni c'est vrai na nga rëbb leen lu dagan la waaye nag bu la fekkee nga armal dootoo ko mën a defati ndax ki armal waroo dagg garab waroo rey waroo def lii yooyu yëpp dañu la koy tere xar ma la muy dagan dagan dagan kenn rey loowu la ko kenn jàppaloowu la picc kenn def loowu la romb garab rek xëcc xob ya mu wadd yooyu yëpp dañ la koy tere boo demee ci maxduratul ihram dina gën a leer yi nga xamante ne moom la armal di bañ mu ni kon yooyu dagan na mais dafa am moment boo xam ne du dagan ci yow mooy li tax daganul ci yow mooy armal bi nga armal moo tax mënta dagan ci yow mu ni inna allaha yaxkumu maa yurid waaw waaw kooku yàlla nee na yàlla moom daal la ko neex lay dogal na ko neexit lay àttee waaye la ko neex toujours teewul xam na lëgël moo mooy doon la ko neex mu defal ko nii am nit koo xam ne moom moom ci bakkanam rek la teg àtteem lu muy def yëpp ci bakkan nag ak ay intérêt ay calcul yu mu def déedéet yàlla de yàlla melul noonu inna allah yaxkumu maa yuridu yàlla mooy àtte la ko neex moom borom bi subhanahu wa taala yàlla mooy kii àtte li ko neex te kenn mënu kenn mënu ko koo tee àtte inna allah yaxkumu maa yurid mu ni yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa yi gém yàlla laatu tuxillu sha'aa'ira allah bu leen sakkoo daganal màndargay yàlla yi am na loo xam ni yàlla daf ko màndargaal ni lii kat dog bi dogaleef na ko waaye dafa am nag lu mu ci tëral mooy weeri rajab yi kenn waru cee xeex kaaba ga kenn waru gis nga dab bu doon dàq nit mu daw ba di dagat ca wetu kaaba ga kenn waratu ko laal foofu mën wa man daxalahu kaana aminan benn périmètre la boo xam ne boo fa nekkee yaa ngi sécurité waaye doon tele tooñ na sax kenn du ko jëli waaye li ñuy def mooy duñ ko jox lekk duñ ko jox naan dañ koy bàyyi foofu rek soo yàlla bu ko xiif beeg man bi sonalee dina fa jóge bu fa dafa jógee su fa jógee nag bu boobaa nag ñu jàpp ko bu baax a baax a baax kon laa tuxillu sha'aa'ira allah dinañ ci ñëw waaye bala ñu gën a leeral aaya boobu ñu ànd ak yéen ci suñu partenaires yi nga xamante ni ñoo leen di gunge ci seen émission bi di tafsirul Quran kon ñu dem publicité. de la noisette et du beurre pour nos chocolats. Un excellent lait crémeux pour une saveur incomparable. C'est C'est du chocolat fondant et du beurre onctueux pour un moment de plaisir. Avec nos produits frais, faites-vous emporter par la créativité et l'innovation culinaire. Prenez le contrôle de votre cuisine et devenez votre propre chef. nous choisissons le meilleur pour vous, pour un quotidien rempli de bonheur et de douceur. macha allah mbokk yi mu ngook mu ngook mu ni kon gis ngeen ñu sant bu baax suñu partenaire yooyu di Sénico gis ngeen euh, lu am solo lii mu ñu indilaat macha allah produit bi daan na leen jox meew ba meew mi yëg nañu neexaay bi macha allah tey nag indilaatal nañu produit bu am solo bii mooy bii leen di gunge seen tafsirul quran ci weer yëpp incha allah moom ngeen di àndal macha allah muy secret yi nga xamante ni moom faw nga jaar seeni Sénico rek pour man ko am am na solo dina witt li baax nag nit ñi ci koor gi kon ñu nag yéen rek ba koor jeex fois yoo ñuy dog rek ànd ak yéen saa yi ñuy xëdd ànd ak yéen waaye sant it bu baax waa agence de voyage bu mag bii di at Tan'im ajaratu ana taal ma ziar ko bu baax a baax a baax moom mi ko jiite macha allah madame Guèye ak équipe ba mu ci àndal yëpp di ci liggéey gis ngeen leen ñoom it noonu rek la ñu nekkee yal na yàlla yaatal di agence boo xamante ni ñu ngi ci aj màkka gi ñu ngi ci omra yi ñu ngi ci ziaraat ci Cheikh euh, ca Fès macha allah jàmbaar ci lool nag mbir mi moom du waxi kese ku ku jëflanteeg ñoom di nga xam ni macha allah mën nañu aj mën nañu umra te mën nañu yit macha allah ziyaaraat yi nga xamante ne mooy am man yàlla yàlla gën ko suqali mbokki jullit yi bu ma dellu siwaatee mu nii kon bu leen sàkkoo fekk yàlla wax ngeen bëgg a profitoo ni dañuy daganal loola mooy lan tooñ ngi nit ki tooñ na la nga war a xeex ak moom mu daw ca kaaba ga toog nga dama ko fi fekk déedéet loolu yàlla daganal la ko weer yi nga xamante ne te araamal nañ ci ci xeexit doo ne non non waa ji daal tooñoon na ma naa ko naa ko dóor rek léegi rek su ma paree décompté ko ci yeneen weer yi may mais mënuma ko bañ a mënumaa bañ a xeex ak moom déedéet yàlla nee na bu leen def loolu walla shahr al haram waaw waaw weer yi nga xamante ne araamal nañ ci ci nit ngir mu xeex ci nee na fexe leen ba bu leen ci xeex waaw muy al ashurul xurum yooyu ngeen miin bu baax yasalunaka ahli chahri lxarami qitaalun fiihi qul qitaalun fiihi kabirun waaw waaw yàlla nee na xeex ci baaxul de waaw waaw lu garaaw la te weddi la waaye nag am na lu ko gën a garaaw wa ixraaju ahlihi min ah looloo garaaw fekk ay nit ñu dëkk seen dëkk ngeen génne leen ci moo gën a garaaw yii ngeen di wax sax nag kon mu ni wala chahr al xaram moytu leen ko ba leen ci xeex wax nañi weer la yoo xamante ni du weer yu nit war a xeex weer la yu ñu war a bàyyi xel weer yu màgg yoo xamante ni day jaar suñu tur mu ni walal hadiya xalaa ida yooyu yëpp it nag waaw muy yu mooy li nit ki di yóbbu ci buy aj fekki ne mu ngi def aj gu ñuy wax maanaam bu defee lu mel ni tamaton wala mu def lu mel ni xiraan day def day tuuru deret loolu hadiyu lañ koy wax loolu it na ngeen ko bàyyi xel xalaa id maanaam ñoom buñ daan jël seen jur goog di ko di ko fas yéenee def euh, yu dañ ko daan màndargaal dañ ko daan màndargaal euh, dagg nopp wala xoos ci dara def ci benn marque pour wane ni bii kat mooy doon sama hëdiyu waaw yëpp nag borom bi subhanahu wa taala nee na mën nga am hëdiyu waaye est-ce que jar na ngay ngay ngay nàccal jur gi wala nga cay def li xàmmee ko rek boo tollee nag ci hëdiyu nga xam ne loolu mooy doon sa hëdiyu bi nga fas yéene bu njëkk dañ ko daan yóbbaale nga daan gis gars yi saxaaba yi bu daan ñëw dañ koy wékki dañuy jël seen xar yi wékk ko seen seen kii bi ànd ak moom sonn lool léegi nag jamono laajatu ko mais boo demee ba màkk léegi jëmmi xar bi sax ba la neex tikke rek lan lay jaay tikke boobu nag nga am confiance ci ni la jox tikke bii ëppoo ko ragal yàlla dina dina rey gàtt waaw kon yàlla bëggul kon ngay màndargaar jul gi noonu moo tax am na sax ñu lay wax ni la euh, wala alhad yi mën man nga ci dégg alhad yi nga xamante ni alqalaid yi nga xamante ni dañ leen di màndargaal yàlla bëggul ngay def loolu jur gi lii hëdd yu daggan na waaye bul jël lu dagan loolu dugal ca lu daganul ca biir bul ko def mun wala amiin al bayt al xaram waa ji nga xamante ni dafa jug uti néegu yàlla baat bari histoire bu mu la tax a xeex ak moom bal jàmbur waa ji nga xamante ni dafa jóg te dara yëkkatiwu ko lu dul ni kat moom dafa fas yéenee dem ca Kaaba ga te kat dem googu yabtaxuuna fadlan min rabbihim wa ridwanan dañ fay uti ngëneelu borom bi moo leen tax a jóg waaye bokk na ci li leen tax a jóg am ngërëmuk borom bi subhanahu wa taala yabtaxuuna fadlan min rabbihim wa ridwanan waaw ñi am ngëneel lu tukkee seen borom waaw waaye amit ngërëmuk seen boroom loolu tax leen a jóg kooku wax dëgg yàlla waroo histoire ak moom waroo histoire ak moom waroo am problème ak moom bàyyi ko ci jàmm ak salaam ko ci jàmm ak salaam waaye bu ko woo ci histoire te bul histoire ak moom loolu dafa jara bàyyi xel nit boo histoire ak moom ba mu dem ba ca Kaaba dem ca béréb booba dem ca Makka ah bàyyil nag bàyyil moo gën mun ni way daa xalaltum su ngeen demee nag ba simmiku fastaadu kenn téereetu leen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen rëbb terewul leen ko waaye nag ginnaaw bu bu bu ngeen armalee ba armal bi jeex si ngeen di soog a def loolu mu ne walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin an sadduukum anil masjidil haraami an ta'tadu nee na rikk waay yàlla nee na bu mu leen yóbbee mukk mere gu ngeen mere ay nit ndax sikk gu ñu sikk tooñ gu leen tooñ dégâts yu rëy yun def jëmale ci yéen loolu metti leen ba mettit gi toll ci yéen foo xamante ni ndax lan tere gi leen doon tere néegu yàlla bi ndax kat gaa yi ba ñu ñëw sulxul xuday bi julli dañu ñëw ba foofu yéefari neen du ngeen fi dugg du ngeen fi dugg ñu dellu tere leen loolu mu ne loolu bu mu leen metti mukk ba ngeen jalgati maanaam nit dabba day moytu suñ ko tooñee bu tooñar bi loolu nit daf ko koo xam ne yow daal soo ko romboon benn koŋ bu soobee yàlla dina la koŋ mbéj la xët la bule la ci benn koŋ soo ko koŋ mu nga ëppal di yàlla nag nee na moytu leen di jalgati moytu leen di def loolu bu leen mer mukk am lu leen naqari ci gaa yi ak seen doxalin yu ñaaw yii ñu doxal loolu métti leen ba tax yéen ngeen jël am lu leen naqari ci loolu ba ngeen ni ñun kat dinañ fayu ci lii ñu ñu defoon ba fayu ba ëppal yàlla nee na bu leen ko def bu leen ëppal mukk bu leen leen rey bu leen jël seen alal bu leen leen def dara lu mu leen def lu mu leen metti melti mbañeel gi nekk seen digganteeg nooneel gi nekk seen digganteeg ñoom ak jëf ju ñaaw gi dox seen ak ñoom ba ñu tere leen néegu yàlla bi ñoom ñoo man lu ñaaw waaye yéen bu leen ci jugi jëkk dem ba jekku leen naan na leen def lii na leen déedéet bu leen def noonu yàlla di ñu wax nii ñun dañoo war di dimbalante mu ne wa taawanu alal birri wa taqwa waaw mu ngoog yàlla nee na nañu dimbalante ci ak mbaax ak ragal yàlla Abdullah ibn Abbas ba ne ko lan mooy albir mu ni mooy mutaabaatu sunna nee na mooy topp sunna loolu mooy ak mbaax ak mbaax daal mooy loo xamante ne boo ko defee ba pare yow sa xel dina ci dal waaw ak mbaax mooy loo xam ne boo ko def boo koy def doo rus ku la ci fekk fekk la ci loolu dala du la déranger amoo ci benn problème parce que gis nga ni yow lu normal nga def y a pas amoo ci benn problème dina loolu mooy attaawun alal birri wa taqwa ngeen di dimbalante ci ragal yàlla jullit day dimbali mbokkum jullitam ci ragal yàlla soo ko gisee muy def lu naqari yàlla waar ko delloo ko ci boroomam bu dul julli xiirtal ko ci muy julli bu dul woor bu ko toroxal ci mboor nan ko baadoola bi nit ñi nekk fii doo woor woo ko ci ruq wax ak moom waxal ak moom ci ruq taawanu alal birri wa taqwa waaye wala taawanu alal ismi wal udwaan nee na bu leen dimbalante bu leen di dimbalante ci bàkkaar ak nooneel nit nit du dimbali nit ci def bàkkaar nekk cib koñ ku bëgg a mooy yàlla rek ngeen ko am naa niig bu ñuy mooy yàlla am naa koñ bu ñuy mooy yàlla am na fu ma la mën a dugal ruq boo xamante ni kenn du la gis ku bëgg a def lu naqari borom bi ngeen ko mën naa laa aal sama oto nga dem defi ko boo toogee jaaykat bi muy def jubadi au lieu que nga xamal ko ni ko lii bàkkaar da nga ko waaw lii de moom boo ko bàyyiwul léegi sa bénéfice gën a bari da nga ko daan léegi la nga sàcc gën a bari waaye doo ko léegi sa bénéfice gën a bari soo fekkee <clears throat> couple bu am problème bul ñëw di ca sotti pétrole di taal fi xel noo leen jubóolee taawanu alal birri wa taqwa waaye ñëw di leen gën a jaxase waa yow <laughs> sa yow da ngaa lewet sax man de sa lii bu ma ko jigéen defoon su ma la fan lay fore ci fu soree sore la lay fore waaye yow kii bu ma doon yow fase naa ko déggal am na ñoo xam ni tas nañ sëyu jàmbur yi ci erreur de ah man nag sa waay man nag dama am fayda de man am na yoo xam ni man du ma ko négocier de du ma bàyyi nit mu may fooy de man ku ma ko def xam ku ma ko def ku ma ko def di nga jot sama jikko jigéen ñi doo leen bàyyi fii ñuy fu fu da koy da koy fase soo ko fasee mu dem torox dellu seen kër sonn dina xam ne mu demee yàlla nee na wala taawanu alal ismi wal udwaan bu leen dimbalante ci ay bàkkaar waaye bu leen dimbalante ci ak noonoo waaw di xiirtal nit ñi ci ñuy noonoo di amee problème nee na bu leen ko def mu ne wattaqullah ragal leen yàlla wattaqullah ragal leen yàlla lu tax ñu war a ragal yàlla muy ndax inna allaha shadidul iqab yàlla ku tar mbugal la <clears throat> ah dabba ku tar mbugal di ko moytu te yàlla nag dafa tar mbugal nee na comme nag dafa tar mbugal li war ci ñun mooy nañu koy moytu nañu ko ragal moom borom bi subhanahu wa taala dañ koy moytu bu baax a baax xool dañuy def xool ni koy defee xool fi ñuy teg suñu tànk xool ni ñuy organiser mbir yi waaw ndax yàlla kat nee na ragal leen ma de li tax nag ma xam moox leen ni ragal leen ma damaa xam ni sama mbugal dafa tarde kon nag bu ngeen ci bëggee mucc am leen at taqwa muy ragal yàlla moo leen ci mën a génn mu ni xurrimat aleykum mu ñëw nag ci aay bi nga xamante ni moo araamal dabba yi nga xamante ni araam na ci nit mu lekk ko bi ci njëkk mun la almaytatu médd médd jullit du lekk médd xar mi lu mu duuf duuf duuf bu méddee bul sant faal wala nga sant jaañ wala ba sant ni garaawul daal affaire bi bu ko def mukk yëfi jaañeen ba waaw bu ko def mukk yëfi mbokki Pape Matar Diagne ba ak Abdou Khader yor xaram ñuy waajal tabaski ah xar mi faatu mi dee te danañ suba la tabaski mu jaaxle lool ñëw ci imam bi ni ko waa imam yow imam boo rendee man ma rendi bu gën a baax ah mu ko bi man nag imam laa dëkk bu ma xaw a tëkkaleeg sa bopp imam bi mel ni ku yëg boppam ko d' accord mais imaam yow boo rendee yonent bi rend bu gën a baax ah mun ko déet yonent bi yonent bi nga may dégg sëkkaleel kooku yemul ak kenn mun ko waaw waaw yonent bi bu rendee yàlla rend bu gën a baax bu yonent bi reyee yàlla rey bu gën a baax mun ko ah yàlla nag kenn doo mun ko man de moo ma reyal sama xaru tabaski bi waaw kon nag moom soo yàlla kenn mënul tee ma jëfandikoo man ko wax dëgg yàlla yaa sant jaañ dëgg nag yaa sant jaañ dëgg dëgg dëgg ñaanal yàlla rek bu jox la loo jëndewaat beneen xar mbokk yi kon médd dafa xaram wa damm ak deret deret kenn du ko coaguler pour du ko jëfandikoo déedéet dékk deret ji jël ko deret ji mën naa koo téye am na yeneeni mbir yu ma ci mën a defal nee na deret jooju dafa xaram boo gisee buñ ko rendee ñu bëgg nga bàyyi gis nga boo gisee médd bon mooy deret ji war a génn gis nga boo ren bu ñu rendee xar euh, dab gis nga ni deret ji di sànnee loolu lay sànni sànniwaale lépp lu ci bokkul lu baaxul mais bu dee dafa métti nag deret ji day tasaaroo ci yaram bi te du baax mooy mbir mi waddam mu ne walaxmul xinziiri yàpp mbaam yàpp mbaam nee na araam na de yàpp mbaam xuux nee na dafa araam de jullit bi waru koo laal de waru koo laal waru koo jege waaw bu ko neexalee kenn nag bul ci gisin naan moom kat moom moom rafet na yàpp war a yéet te nga ko faa bàyyi rek yàlla nee na la yàpp mbaam bi baaxul de na de waaw ci jullit bi jullit tere nañ ko mu lekk yàpp mbaam xu ci noonu sax si la borom xam-xam yi dugalaale sax mbaamu sëf lépp luy mbaam rek ñu xamal dina dee su ko lekk mu ne wamaa uhilla li gayrillaahi bihi ak lépp loo xamante ni jël nañ ko di ko tuur di ko rey te yàlla taxul ñu def loolu yoon loolu yi dafa aram de waaw ah, boobu loo xamante ne bañ koy rey tudd ñu ci yàlla nee na loolu aram na de loo xam ne rey ñu ko ngir yàlla yit dafa aram dafa aram am na ñoo xam ne noonu rek lañu ñu nekk de kër yoo xam ne ci ko ñaari fan ñu ne rek ñu def sarax sarax yu dul jeex sarax yu dul jeex yow doo xam nu ñuy reyee doo xam buñ ko aussi looloot ko sarax aayul de mbokk yi lu baax la ci nit mu koy def waaye nag na nga seet sa diggante yàlla de ci li ngay jox doomi jàmbur yi de li ngay joxe dee ko seet bu baax la baax ci nan nga ko reyee bu dee danga ko rey rey bu dagan def ko sarax dara newu ci nit mën na toog def jënd xaram rendi ko def ko kii saraxi ko dara newu ci mais da doon rek ngir yàlla waaye boo ca dugalee yeneen i mbir day garaaw mu ni wal mun xaniqatu kon nga xamante ni lépp loo xamante nii day nañ ko tudd ca leneen lu dul yàlla rek nee na boobaa day xaram wal mun xatu lu ñu xar wala bëy wala nag bu ñu xerandiku boo xamante ni dañ ko takk ba takk ba dëgër buum nga xoj ko ba mu ba mu ba mu ba mu dee loru ca loola wala ba nga xamante ne ba nga ko bàyyi xam ne kii moom day war a di moom wax dëgg yàlla day dee rek kon kooku doo ko jël wal mawquusatu loo xamante ni xar mu teg ñu sànni ko tollu fe sanni ko ay xeer wala sànni ko dénk wala sànni ko feer ba mu daanu dee nee boobu it kenn du ko jël waaw wal moo xuusan loo xam dees ko sànni sànni yooyu ba loolu dal ko ci ah nee ba mu dee dee ci noonu déedéet dees ko war a di waaye kenn du ko dóore noonu rek ba mu dee ne xar mi de lañ bëgg a rey kii na kii yor fii baar de fer na kii yor fii dénk na kii yor fii matt ñu koy sànni di ko jànni xeer ya ba mu bopp ba toj wala dara mu dee ca déedéet kenn dootu ko jëfandikoo wal mu tara mutaraddiyatu lu barastiku nga xamante ni xar la ngay téegal leen ko xëy na mbaar mi ci kaw la ne mu daanu barastiku daanu da ba rek gis nga gis ni fii ne moom say kii moom daanoom bii xam lu jógee ci deuxième étage ni daanu barastiku noonu na muy loro nee na boobot bul ci profité naan naa ko gaaw rek gaaw rek rey moo am ñoo xam dañuy fekk loo xam ne rey mu dee reyul mu dee lan la wax kooku moom doo ko rey mais na xar mi sonn na mais deewul mais nga gis ni vraiment naa ko rey rek comme xës na ba sonn mais nekkul tollul ci phase war nga xam ne kii moom wax dëgg yàlla mu ngay lépp a ngay sotti mu ngay déet wan na xatu boo xamante ni dañ ko mbëkk ay xar yu dañante ba benn bi gaañ morom bi gaañ boo xamante ni mënatu ca dara ba day fas yéene boobu it kenn du ko jëfandikoo. wama akal saboo ak lu ndeg menti lekk xar maanaam gaynde yeeg yooyu segg yeeg till yi. du lekk ba bàyyi fa lenn déedéet boo ñëwee doo ko jël de illaa ma zakkaytum lu dul ni xëy na gaynde gi da doon bëgg a jàpp euh, bëy bi war a dara mu xaw a daw mais jot na ko laal mais laal bi sax reyu ko mais gaañ na ko nee na boobaa mën nga ñëw rendi ko euh, dina dagan waaye bu dul loolu nag moom illaa ma zakkaytum lu dul yéene ko rendil seen bopp ci sago rek waaw wama zubiha ala bi ak loo xamante ni nag dañ koo rendi def ko ci samp yi ah ñu baal ñu de dugg na ca samp ya jël xar mi nañ ko rendee fii ci xàmb yi nañ ko defee nii nañ ko defee lee yooyu arab yi dañ ko doon def ci ay xeer ak ay mbir yàlla tere ko kon ñu nit dañ ci bàyyi xel waaw muy ginaar gàkk muy xar mag yépp doo ko def ci ay samp de yaay samp yoo xamante ni kuur gaa nga samp fee dénk baa nga samp fee tojitu ndaalaa nga fee nañ foofu lañ ko war a rendi déedéet wante booba du du baax de ci ay samp kenn du fa rey wante taqsimu bil azlam araab yi dañ daan def loolu mooy bu daan bëgg a dem dañ daan am am ay kayit yu daan yor bii defal bul def wóor na wóorul xëy na moo yoo xamante ni moom la daan gi bu ñu kii dañuy génne bu nee ko defal mu ne mooy amarani rabbi sama borom digal na ma kon da damay wala sama borom tere na ma di nattale ci ay mbir yooyu mooy genre loterie lay doon rek naan bu ma jëlee bant bi bii jig na ma bii jiguma bii boo génnee bii mu def nii bii boo dee déedéet nee na loolu baaxul loolu baaxul nit day wóolu yàlla rek ñaan mën nga defal sa bopp nag sa istixaara mën nga defal sa bopp lépp laaj sa borom maa xaaba man istixaara wa maa nadiima man istashaar waaye di bantanteeg fii di tani fii di tani ja wasaana jaar na fee jaar na de yooyu nee na du noonu de mu ne zaalikum yëpp nag fisqun lu bon la ak kàccoor la ak génn topp la yii mu la limal yépp ku ko def ku ko jëfandikoo rek jëfandikoo nga lu baaxul loo xamante ni génn topp lay jur nee na bàyyi leen mu nag ñëw nii al ma mu mu pare ci loolu rek ñëwaat dina ci dikkaat nag mu ni al ma bis bii de ya isa nag kafaru min diinikum waa gaa yi nag yéefar yi naagu nañ nag seen diine nag léegi nag xam na ni mënatuñ ci yéen dara fatxu Makka ñëw na jullit yi bari nañ xam na ni mënalatul leen dara yàlla nag nii falaa taxshawhum léegi maanaam yéefar yi dañuy xeex jullit ba xam ne mënatuñ leen dara léegi nag ñu naagu ci ne nag ñii moom seen diina ji dina fi ne falaa taxshawhum yàlla nee na bu leen ragal yéefar yi wax shaw ni ragal leen moo indi nag aaya bii nag dabba mooy aaya bi nga xam ni bi mu wàccee rek yonent bi yëg na ni mu ngi waaj a wuy ji boroomam mu ne al al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina mu ni tey yàlla ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw rek arafa si la wàcce rek aaya bi wàcc ci moom ni ko sa diina ji dey mottalil nan la ko say xéewalit dolli nañ ko samay samay xéewal dolli naa ko ci yow ba matal ko sëkk gërëm naa lislaam muy sama diina mbokk yi aaya bi jeexewul foofu aaya bi jeexewul foofu mais damay yem foofu tey la ko wa raditu lakumul islaama diinan muy benn arrêt mooy lan gërëm naa lislaam muy seen diine waqf la mais du jeexitalu aaya bi ñi nga xamante ne ñoo xereñ ci alquran boo doon jàng alquran ba yegg fi mën nga fi taxaw soo ko jël fa ma ne turra fi maxmasatin xayra mutajaanifin kon nañu yem foofu ndax bu ñëwaat beneen wax lay wax waaye daal neena tey jii mottali nañ seen diine seen i xéewal matal nañ seen diine mottali seen xéewal gërëmal leen islam comme diine yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu dégloo waxtaan seen la ci ëpp njariñ ñu jariñoo ko mbokk yi teg leen foofu seen baaraam bu ñëwaatee nag sof la ñu sosoon macha allahu defal dégg defal ñu topp aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'il muslimin fa astaghfiru innahu al ghafur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Bilal Mouhamadul Moustapha nuyu naa la ziar naa la.